xula aadamiyin xilafatun malakiyatun xula aadamiyin mata adrakatna li zamani bali yaayam jox na ma ndékki cerey ndawal ba tàyyi te booba ab tuut tànk laa nekk ci daara ja ñu di ma fa yónni bu ma ñëwee mu jox ma ko loolu ba ca yamoon da nga xam ne am na lu ngeen séq rawatina nag yeneen yi ci tegewaat ci ay teraanga kon na nga dalal sa xel ci moom ne la wóor ni ni mu jàppe doomam yépp noonu la la jàppe tey it ñeebluwu la lu mu soxla ci yow dana la woo nga ñëw mu la nangam la soxla yow nag mu ngi nii sa wayjur la sa xarit la del ñëw ci moom di waxtaan ak moom lépp loo soxla nga ñëw nga diisoo ci ak moom tëjalu la benn bunt waaw nee na it mu ngi lay sant ci taxawaayu diine ji waaw bu ko doon lim tey du jeex ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla yokk sa kàttan yàlla gën a yaatal sa wërsëg ci barke yonent bi ba li nga ëmb ci diine ji nga mën a taxaw def ko ba ñëpp gis ko tey it yaa ngi ci jërëjëf nee na bég na nee na kontaan na ñu ngi sant it sa wëllëre yi nga àndal Pape Mor Gueye tabaarakàlla suñu Cheikh eh, ñu ngi leen di sant mooy ñoom it bu baax baax jërëjëf jërëjëf. Eh, yooyu nga yoroon waaw te muy teraangay diine ji. beesalaat naa ko ci sa loxo bu baax ons bi kalimaatillahi taammaati solma allahumma untur bi fi taysiri kul asirin fa inna taysira kul asirin alayka yasirin wa asaluka toogaat ak xalifa bi ndax mën nañoo xam tête à boobu lan la woon lan moo ko wund dëgg-dëgg dëgg la dëgg la gannaaw bi ma nuyoo teeru la si ko sëriñ bi ganam moo fi indi woon waaye bi ma bi mu pare delsi naa pour yeesal ko sama njureelam ci man ak yeesal sama taalibe ak ni ko fi ma tegoon ku fi ma sa nekk Serigne Thiénaba fa laa ko teg wàññiwuma ci dara loolu moom it nangul na ma ko li lépp li nga xaman ne yoroon naa ko ci gàmm gi yeesal na ndigal loolu pour ma wéyal ko loolu moo doon suñuy kàddu. Euh, mën nañoo xam ndax am na ñoo xam ni jotuñu woon ci ci bitim réew ak yëpp li nga yoroon ci gàmm bi am na ñoo xam ne xamuñu woon exactement lan la ndax mën nga ko gën a leeral ba ku la déglu tey rek xam li nga gàddu woon lu mu doon. bon li ma gàdd woon ci gàmm gi mooy bâche bi nga xam ne ci la ñuy defee cérémonie officielle bi ak sonorisation yi mu àndal ak chaise mu àndal ak. Euh, mbokkat yi ma àndal yëpp daal li nga xam ne mooy taaral gàmm gi daal ci cérémonie officielle bi moom laa gàll président de la république li mu def lu jaadu la ab xalifa général gi jóge fi mu jaboote ñëpp waru garam la devoiram la mu ñëw jooxal ci njaalam mën na moo tax ñu ngi ko ci sant bu baax lépp loo def ñu ne rafet na boo ko deful woon ñu xalab la kon ko def rafet di ko rafet luñu ñun ñu ànd ak président de la république ko euh, euh, am ci fierte ci li ñëw ci Thiénaba tey ndax nit ki aussi amul lu dul tarixam koo ko jàppale rek dana la gën a jàpp moo tax président bi war nañ koy ñaanal fi mu teg Thiénaba benn président bu fi jaar mosu ko fee teg te xamuñu bu demee danañ am président bu ko fi bu mel ne moom kon nañ ci gën a jàpp. صفة ملكية